asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bu nu àndandoo maa ngi yéen sant yàlla. ci baatu alhamdulilahi ala kulli xaali. julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi leen di siyaara mboolem ku toog ci jataay bii seen yiwaay bi ngeen yiw seen wàccuwaay bu tedd nga xam ni koo ci xool ko ne da yëg ni tey xolam nux nuxi na ngir yàlla ak mbégte te man ci ñooñu laa bokk bala wax je sori ma ngi soñi sama bokk man ci li tax yalla bindu mu ñu jamm fonk waxtom yi di jéem a jëf ndigalam yi waaye tey bàyyi tereem yi luñ man dem egg na ci ku ko defee la nga ca mënut mu dimbali la ba defaral la ko moom borom tabaraka taala waaye jaamu gi itam ni ma ko daan rek bis yëpp moo ko moom waaye moo tànn bisu àjjuma ne bu dajee ni ngeen bu jotee ni ngeen daje ci ci ne la nga def waxtu julli juma ngeen dugg fi jaamu kon maa ngi ci soññi ñëpp nañ ko fonk bu kenn ci yéen ak man nekk ci dara waxtu jaamu yàlla jot dara la gën laa ñor jaamu yàlla sa borom gi bu ko kenn def loo jàpp lu ne ba jaamu sa borom jot bàyyil loola jaamu ko te dellu ci bu boobaa dinga am yàlla te la nga doon nekk dana barkeel nek ci dara bàyyi yalla day tax la nga nek man nga ko ñak mbaa boko ko amee mbir bu barkeel lu mu bari bari bari bu barkeel lu mu bari bari bari te nax say lay mujj ay nga barke bu duggé ci lu tuti daf koy bari señ bi bind nako motax ngay gis tousu mi wax ni ci ñaanam yalla suñu borom ma lay ñaan kasir khulli nga baril sama lu neew barke ci tak yi moo kon na ngeen baye xel borom bi len bind ba noppi am lu len sant ci surne bi te lam sante sant wul waye ak ko ñor barke dem sëñ jassi mi mi ngi tuddu ay bayit li gënal ci kaw suuf moy jaamu yalla ci njaal benn waxtu sëñ tuba lu muy jariñ mu ni bokoy def bo bëggee suñ borom may la leer gu melni ni jant na nga fonk jaamu yàlla ci njëlbéenu waxtu. wajtahidu fi salawaati alxamsi. Sëñ Tuubaa nee na ngeen farlu ci fonk julli juróom. takkun lakum nuuran ka nuuri shamsi. su ngeen ko defee dangeen am leer gu mel ni leeru jant muy foloote ci seen xar kanam yi. waalam bi anna. افضل الطاعات رمت وان نينا ما نلاي خمال خيتي جامو يالا يي بيجي گن بور كا صلاتنا في اول الاوقات موي نغي جولي يالا سي نيال بن وقت وي مو گنال يالا ليپ لول موم باسكو وقتهم ادهم اي مختار اي ضروري مثلا جولي تسبح 2h moy 10 ba moy le quart moko gënal nga julli waxtu tisbaar 2 heures 5 mhm. waaw mo gën fofu la arrivé ci gare bi sus bo duggé première place ngay jël ku mujjee ñëw nag deuxième troisième ba ka da ngay egg sax su fessé man nga lang moom la suñu tuwaay misal ni loolu benn point la rek ñu jaar moo tax mu bëgg ñu fonk jaamu yàlla gi suñ ko defee ci waxtu yi ba noppi liggéey bi Sëñ Tuubaa bii la Xidmatul Xaadim nga xam ne moo waral daje bi nu fonk lii Sëñ Muntaxa wax léegi nañ ko dégg soo bëggee wax ak yàlla jàngal alxuraan jàng alxuraan nag mooy sart yi yàlla y digle ab jaam mu jaamu ko ci la ne waxtu waxee alhamdulilah yow yaa ngi wax ak yàlla yàlla naa ngi lay sant ba keroog bay jeex yow yaay wax waaye waxtu waxee asbil su tuur yi mooy yàlla kaay defal ma nangam hmm. la wax la waaye kii day jëf wax na dëgg te fonk xidmatul xadim ci xam nga mbir nda jara baye xel set bi nga ko dalé def ak légui jik dalam am fini bi ngeen ko dorogul amna ño xani 1000 francs dañu di jafé bi ngeen ko tambalé légui may sax ñaar nga joxoon fii xool la fekk léegi kookoy sëñ Tuubaa moom benn ngay def bu lay fay moom daa gaaw loolu Sëñ Tuubaa ku ne ci noonu dangay ngay man loo mënul woon daaw xam koo xamut woon ba noppi gis koo xam ne mosoo koo gis Sëñ Tuubaa ci gaaw ñun ñëpp nañ ci farlu di ko liggéeyal sos gën ko sosoon neex gu mu neex dox gi moo tax yeneen sosuwaat na tegu ci ci réew mii ak bitim réew fi ne xetoon xadim yaa ngi bari lool ñëpp a ngi dox kon nag maa ngi ci soññi saa bopp ma nit leen soññi ci jëf ji kon muy jaamu yàlla gi liggéey Sëñ Tuubaa ba tees nag mooy fii Sëñ Muntaxaa dugg man ab julit la ndax yi taxa doon ab mooy tudd kalimatu sahaada yi sëñ ji boo ko ashadu an la ilaha illallah nungu nga ne yàlla amna na te ko nungu ne yàlla am nga nga wa ashadu anna muhammad rasulillah nungu nga ne rasulaa yàlla ko yónni ta ko nga ne rasulaa yàlla ko yónni ci xeetami nga bokk loolu man wax naa ko wax ngeen te julli fi ne benn su la nit tegoon nga def ko gisatu bu ngeen tuddeen téeméeri at bon koy tan lo julit bu dajee yow man na la jàpp ben yoon nga mos gis nit tegu jëm ci suuf su ko defatu woon ba téeméeri at ni mat bu nee wutuloo julit boo dajee waaj jàpp ndax lolou lañ ci wax ku tuddu bar yi te pratiqué nga nga tek ko motax koku ku nekk ci noonu man nga man nga yow loo doon nga ni jullit daa ku ne sañ na ko xam nga lu jafe te am valeur mooy murit ndax nga doon ko li ñuy wax sélection dañ koy tànn ci jikko di ko tànn ci melo di ko tànn ci jëf di ko tànn ci wax di ko tànn ba ci même comportement ak fréquentation dima waaw moom muy te mën ngaa dem ba dajale yooyu yëpp te sax man man mën naa am doo ko dafa am maanaam ay mbir yu daje ci nit waaw yoo xam ne li tax nit ki de doon nit yooyu day yëpp day daje ci ci jëmmam bu doog doon nit ki lu mu ci mën a doon lu ne man nga caa teg loxo ba mu des ruu bi hmm? moo tax laaj nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ani ruux bi ñuy bi ñuy natt nit ba xam nit ay nit waaye ci biir nit am ci lu jaaxal ñun dañoo laaj bi li tax nit ki di koy alimenté ba tax mu doon ko ruux mooy lan mënut a tontu xulli ruux min amri rabbi la ñu wax amul beneen part la boo xam ne yàllaa ko yoral boppam nga xam ne li fekk mu ngi ci biir nit ki nit kiy fonctionné su ci nekkatu nit ki taxaw bu nit tëddoon fii nga xam nit la moom bu ci génnee dootu ko tudd néew lañ koy wax li fekk mi ngi ciy ne kenn du tudde nit ki néew nit lañ koy tudde kooku mooy mbir murit nag noonu la xawoon ndax xaadimal Moustapha mii nga xam ne moo woote muridisme ba bi mu fi bàyyi koo di tuxu dem beneen barab murit la murit lay wut xam dafa am ñett li ñu tuddee muriitu ak muraadu ak marit du benn du benn muraadu ak muriid ak marit boo leen dee bind dañuy nuroo nuroo ci texte waaye ci comportement dañuy wuute muraadu mooy rasulullah deful lu tax yàlla sopp suñu borom daa xëy xëy ni ko yaa ma gënal gaa yi rek dañ ko dañ ko bëgg muy ku ñu bëgg murid moy kuy kuy bëgg mom muradu moy kuy bëgg marit moy ko wedd kenn bëgg déggoo ko ku kenn bëggut mooy marit murit mooy kuy bëgg muradu moy kuy bëgg kon muradu mo gën ñëpp mooy rasul alayhi salaatu moom effort du ko joxe ni yàlla neexee suñu borom lay doon yàlla neex suñu borom rek la mooy gëneel lu yàlla ak de yàlla amul lu tax yàlla di ko jox jaamam bi raxmat yi yàq si bi raxmat yi ma ne sax moo tax yàlla bind jaam ñëpp moom leen fekk Rasulaay fi mu nekk nelaw mu tàpp ko ba mu neex ni ko yaa may gënal gaa yi sarsanaa la mission lu ci di léeg-léeg ma wax ko muy waxee mu xaw a doy waar ku di la yonent bi gënee yoonam niw ci moom du sa yaafuus lu njàmbaaram ku ne ci nun la rasulaay gëne du sa yaafuus waaye du njàmbaaram moom nag yaa ma neex suñu borom koy muraad muridullaahi nag mooy ki bëgg yàlla gis nga boo gisee muraadu moom murid mën naa dem yenn saa yenn saay yi ba supérieur ko parce que kee da koo liggéeyu kii daa liggéey ba am ki liggéey ba am bu fekkee moo kale ñoo tollandoo am te kee liggéeyu ko bu dee ci valeur yi kii moo gën léegi parce que kii effort ak ko jox kenn nag yaa ma jox bu bokkee nun amit duñ bokk duñ ko amit lu dégg ko moy ku jëf lu baax ta amul xam-xam ak ku jëf lu baax ta xam-xam may ko manam ñom ñaar bo boo leen posé du yem parce que technique bi borom xam-xam am ba defar ko ké da xey xëy yem ci da am sens du ben murid moy ku bëgg yalla te diko wut daa jara xam marit nak moy ko xam ni yalla bëgg ko te moom bëggul yalla pourtant non la tudd moo tax suñ tuba tudde ko saaxawaayaati waaw kay moom foo ko fekk day réew marit te boo waxee mu ni ci laa bokk waaye lu yàqu ci biir marit gi moo ko yàq dafay am murit moomu nag nga xam man moom lay wër bëgg koo doon moo tax ba gisee fi ne ku ma ko xeeñ comme sëñ Muntaxa mi fii ne boo waxee man ko murit nga ñaan ñu doon ko bu dee julli gi waxaale woon ko ñëpp moom noonu léegi la jógee ci jàkka ji def nañ ko li tax ñu ne ñu ngi tuddee jullit moom lañu doon def waaye murit nag mooy mooy valeur bi gën lu leen lu dul moom te boo ko doonee bu la nee fu mu nekk ci yow doo ko mën a xam doo moo tax maam Cheikh ba ko waxee ni kon nu ñuy def ba am ko dañ dañ di ko wut rek ba kañ faal mu ni di ko wut rek ba kañ faal mu ne ko ba kere nga way am rek par ko soto fexe ba am ko nak mu ne ko nga dem diko ko rek mo murit ba kere ngay génn àdduna maanaam bul naagu ci mom sa yo xëyee japp ndax yor nga ko déet boo rek del seet ndax dana rëccam déet ndax da gën lepp mo tax seigne Tuubaa di ko ci beytam yoyu ni ñent la yo xamni woy naa man Xaadimu Rasuul waaw la sam tuxaa way naa ko beexti saa ci gàttal loo ca jublu mu ne ragal ëllëg ku ma gaaral nooy def ba doon murit mun day fekk sa xol toj ba sa diggante sëñ bi doo ci am looy sikki sàkk mahabatu sayx bëgg kon première pilier wu doon murit mooy xol bu sopp ki nga bëgg da ngay sopp sëñ bi sopp boo xam ni maanaam boo ko xasee lokk leneen lu ko traverse day wex xam nga boo gisee boobu sëñ tuwaay defar doon defar ataayam ci tey suukalu talsiim si di toj di sotti ci baraada bi xaadimu musaba bu sottee sotti ba ba ba mu yàgg mu jël kudd wala bantam bi yëngal baraada bi yëkkati mu jëm ko feeg li ci maanaam xam nga li ko xam ngeen ko far sax ko far sëñ Tuubaa ci lay xamee sukkar waaye du ko xamee ci ci góoxu bi mën ngeen a gis loolu koo xam ne boo góoxee doo xam saf na am déet pour nga xam ne saf na mooy da nga ciy saf mu def génn buubu mu laaj si Bamba waaw luy mu yàlla ji saf ci man moo tax dara safut waaw maanaam neexitu suñ borom bi may naqam naqamti ko moo tax xamul maa xam sukkar su waaw mais moom heure boobu muy di dikk ci moom problème loo nga xam ne sax na suukar mais suukar soo ko ko naan ku lu moom mu dépensé la ku ko naan ku lu moom doo ko mën a naan ndax na mel kooku muy bëgg bañ a gaaral lu tax sëñ bi nangam ma waa biim toll yal nañu yàlla musal ci seytaan parce que yenn saa yi boo ko dee xool kay topp dootu doon murit moment bii ak ni suñu réew yi tëddi ak yi xew nii day dem ba day yàq sa pas-pas ki ngay ki ngay topp bu doon boo xoolee pas-pasu taalibe duutu ko doon parce que ci ci doxinam moom ci la taalibe bi di rékki koo ngëmam te taalibe bi liy rékki ngëmam mooy ni sëriñam di doxe kon fu ñu jëm léegi nag bi sëriñ bi doon sëriñ muy sëñ Tuubaa murit bi doon murit yooyu dafa dox doon seen diggante sëriñ bi képp fi nekkoon ak murit bi képp léegi nag dafa am beneen waaye bu ci wàlli muy bakkan adduna saytaane alal te lu mu doon ci lii day tax sëriñ bi duutu sëriñe wala taalibe duutu taalibe te ñoom ñaar lu yooyu dañu seen diggante liñ seq set dox te beneen affaire lay doon bu boobaa moo tax di ko ñaan moom murit lu jar di bari la ñeent fukki wali yu mooy ku yàlla garaade ba noppi farak moom 40 bu ma la ko bëggee wax naaru góor xam ngeen ko waaw kay mandi pepp 40 pasunaaru boobu seen doole mooy benn doole oto bu ñuy wax deux chevaux deux yi nga daan gis bu njëkk soo takkee ñee eggum ci baat taal deux chevaux bi bu waa ji dugalee première deuxième yóbbu leen foog mu jëli leen ñeent fukki naaru góor maanaam ñeent fukki waxambaane seen doole mooy doole benn façon naaru ñeent fukki naaru góor seen doole mooy benn doole deux cent ñeent fukki deux cent yooyu boo leen boole seen doole mooy benn doole waliyu kon waliyu rëy na de ah maanaam ngontum menn murit saadeex moo ëpp doole ñooñu murit moo ëpp doole ñooñu waxambaane bi nga xam ne deux cent ko ëpp doole deux cent bi nga xamante ni eh, waliyu ko ëpp doole waliyu boobu murit saadeex ko ëpp doole waxul murit saadeex de fa mu gontu jaar moo ko ëpp doole kon murit beneen étape xam nga wax na ko léegi nii ku ñuy jiñ egg ci yàlla te te wóoru ko ndax egg na am déet kooku jaaxal waaye képp ku ne am nga yàlla boo eggee ci buntu kër yàlla fekk fa Seex Ibra Seex Ibra mooy murit murit la moo tax ma egg ko te yeneen yii nga xam ne jàpp na ni moo yóbbu nit ñu jaarul ci yooyu moo tax bi ko waajee woy dafa wax ne xat jus xat Seex Ibra xat fuxtari rek la wax daa xëy ni dafa def dafa tëb góor jaaru jaarul fi ñu jaar waaw gars yi dañuy yi gars jaar am ko jaaru ci xat jus ma jaar inna kal kamal hmm? fa faaxaari xamul jaaru kaayam a tax xam nga bi ñuy werante mel na xel te sëñ Tuubaa ko doon laaj ni taalibe yi ndax xam ngeen mel na xel ku nekk di xam naa ko mooy kan mu ni mooy ku yor benn bët ñun dañ ko wétu